Gambia gis ngeen ko tay suma ebela toga bamba ha gis ngeen sipa sipa yaangi ni gis ngeen ah neli gunja yi pañi yi lu nekkang fi ma ko lu nekkang fi gis ngeen ba gis ngeen karaab bi la lii li laaw ay yow li keur sak la am xoole ma pañ bi xool len bu dija dija bi xool len ko a ah, chum